mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar ñu amati mbétte contentement bu baax mais ñu amati mbétte bu baax duggaat biir Géejawaay jël si doomu Géejawaay ku ne doomu Géejawaay ne kala de kalanda koo xamante ne kalanda bu écrit waalo yàgg ak ànd ak gaa yàgg seen biir lool lool lool lool mais dañ dañuy waxtaane tuuti tey xew-xewu Géejawaay xew-xewu lamb dañuy waxtaane nag jafe-jafe bi nga xam ne dal na la dageer de di xaritam di léppam wax dëgg yàllam muy mbir moo xam ne naqara tiis gu méttee métti la gu Géejawaay yeewoo tey kalanda ñu ngi leen nuyu baax di la waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di fay di leen euh, di leen di leen béggee waaw euh, di leen sant tamit seen disponibilité quoi parce que lii yombul waaw di sant suma sëriñ Cheikh Abdou Aziz Ndiaye ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waaw di di sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad waaw ñu ñu tàmbali waxtaan bi si jàmm quoi di la wax ne la bismillah soyez bienvenus waaw waaw. jërëjëf Kalanda ñu tàmbali waxtaan wi rek euh, am ay information yoo xam ne métti ka Lac de Guiers démb yoon da koo teg loxo ginnaaw ba mu ñëw ak léegi motul sa deux jours yoon teg ko loxo. waaw euh, alhamdulilah Lac de nag ñëw na lu ëpp deux jours quoi. waaw ñëw na lu ëpp deux jours parce que semaine bi ñun ñaar ñoo ko passé quoi lépp ñoo doon nekk quoi. waaw ñun ñaar ñoo ko doon passé quoi waaw. loolu la ñu daw ki koy def mooy euh, koo xamante ne maanaam. Euh, dañ la dañ la dañ la sëkkatal wala maanaam maanaam da ngay daw loo xamante ne maanaam genre Lac de amul lu muy daw waaw pour wax dëgg Lac de Guiers lu muy daw parce que la de Guiers de tey homme de célébrité la cadre la ci dëkk bi référence la ci dëkk bi te dugg na tey ci histoire dëkk bi amul kenn ku ñuy présenté ti la de Guiers numéro 2 amul waaw ngay yeewoo fii ci dëkk bi non amul yaakaar naa kooku bu buñ nee dafa daw ñu warta wax ñoo wax rek mais ñu war a wax bu ñu waxee ñu bëri dinañ comprendre waaw li nga xam ne am solo la mooy tout le temps bu mbir amee ñu war wax rek ngay dégg ñuy wax mais yéen ñi nga xamante am ngeen ci loolu ci wax xam ngeen carrément li nga xamante ne mooy mbër mi xëy na ñëw na fi te yoon mën na woolu tamit ku ne ah bu la soxla da lay man comme man moom euh, du ma wax mukk ñi xam dëgg ñu ne waruma wax waaw te man su ma waxee rek man war naa wax man depuis depuis j'étais petit man la dëgër de moo ma yar mooy sam papa depuis sept ans depuis huit ans moo maanaam moo tax ma xam lépp comprendre nga kooku su ma waxee ci moom rek maanaam je parle avec maîtrise damay wax ak lu ma xam waaw tatoué wu ma quoi la de guerre de alhamdulilah bi mu ñëwee léegi yàgg na li ko arrivé ni nag ku nekk la mën a arrivé waaw ku nekk la mën a parce que yoon moo ko soxla waaw parce que dañ ne doon yëngu ci domaine boo xamante ne moom waru ci yëngu comprendre nga la nii la demee ñii ne nii la demee source yi tasaare mais ba léegi nii képp ku la ci wax ne la moo ci xam nangam billaahi wallaahi tallaahi barke Muhammad waxu la dëgg amul dara luñ ci xam problème amul dara luñ ci xam waaw parce que nit ñi bu yi amee ay profiteurs la nekk di diaboliser ku nekk di wax te affaire bi dafa nekk loo xamante ni dafa privé comme nappkat bi ni muy demee géej géej gi am problème ñu ne ko tey doo dépassé fii fubalkat bi war a fubal ñu ne ko tey ab too parce que da am problème mu sëf yoo xamante ne genre moom la concerné yàggul dara am na benn mbër boo xamante ne dafa am combat bugguma tudd tur amu fi problème France. waaw yàggul dara buñ fàttalikoo ci ginnaaw am na benn promoteur boo xamante ne. daroon trafiqué ay signature CNG. gars yi jàpp ko retiré licence am. mu boot yeneen ginnaaw promoteur di tëgg ay làmbam. kon problème yàgg na bu demee ba am sax lu ñu mën a waxtaanee la. Mhm. waaw ñi war a wax nag ñu wax. Eh. la bu fekkee problème bu am ak ay nit la yéen ngi ñaan jéggal bu fekkee problème bu ñaan jéggal ci état. waaw xam nga maanaam problème bu nekkee da nga am ak euh, nit problème loolu sa diggante ak nit ki la waaw faw ngeen am ay discussion ñu xool nu ngeen ko mën a arranger moo xam ki tooñ moo xam ki ñu tooñ waaw ñoom dinañ trouver terrain d'entente mais même bu nekkee dafa egg nag ci ci ci ci mbirum yoon waaw maanaam même bu ngeen trouver terrain d'entente sax yoon dafay def liggéeyam waaw il fallait que mu mu woolu ki tooñ ak ki tooñ euh, ki ñu tooñ waaw bu ko defee ñu entendre leen ñu xool nu ñuy nu ñu nu ñuy nu ñuy trouver terrain d'entente quoi waaw waaw waaw loolu laa gis ko dëgg la loolu am na solo loolu kala mais ëllëgu géejawaay lan la ci jeunesse bi ak xale yi ci làmb. ëllëgu géejawaay maanaam man yaakaar naa waxoon naa ko fi temps yi passé waaw maa ngi nuyu Aziz Ndiaye suma papa au passage parce que la fois que man la fois passé que man ak ñuy def émission woo na ma waxtaan nañ conseil na ma ci lu bari. suma papa Pape Mama Fall maa ngi koy euh, gërëm bu baax waaw suma euh, père Balla Gaye numéro 2 maa ngi koy gërëm waaw suma mag Sa Thiès waaw suma papa Aline Seye numéro 2 maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp waaw mais ëllëgu géejawaay c'est-à-dire comme dama waxoon ne waa waay géejawaay boolowuñ c'est-à-dire genre des fois bu ñuy wax ne ay nit boolowuñ c'est-à-dire nit ñi faaw ñu utiliser seen xel nit da ngay am capacité de réflexion da ngay am xalaatukaay bu yaatu. lu wax bu ñaaw non non non ñun nekkuñu fii di jeter des fleurs qui que ce soit mais bu ñu gisee loo xamante ne dañ ko war a wax ci lu positif loo xamante ne day defar gox loo xamante ne day defar ay nit yu daje loo xamante ne day defar ay nit yu bokk non dañ koy wax exprimer wu. déjà waxoon naa ñu ne kii xale la nangam ak nangam lii mais des fois man nit la man je suis un responsable malgré à mon âge loolu laa gëm. comprendre nga lu ma deew ma kër kenn su ma gisee loo xamante ne ci gox bi laa dëkk waaw juddoo fii xam nga pare pour nekk fi dara su ma gisee loo xamante ne day defar gox bi ma kaa war a wax yàqul dara waaw yàqul dara mais géejawaay seen ëllëg waaw nit ñi tiit nañ ci waaw lan moo tax nit ñi tiit nañ ci. li indi tiitaange nit ñi. waaw li indi tiitaange nit ñi mooy euh, pourquoi comme kaaw la de guerre ma ma ma ma référé wu ci la de parce que loolu mooy actualité. la de guerre numéro moo daan Eumeu Sène ma duggee ci làmb rek moo daan Eumeu Sène moo daan Siteu mm-hmm. moo daan Boy Niang mm-hmm. moo daan Yékini mm-hmm. moo daan Tapha njëkk a daan Issa Pouye njëkk a daan Yékini Junior pour pourquoi loolu yëpp duñ ci wax la de Guiers moo bari 2005 ba 2024 mbër musul toog ci kawam pourquoi duñ ci débat mais Lac de Guiers 2 dañuy yàqante mu am problème rek ñu bëri exprimer wu quoi moom moom moom ci problème lay amee bayre <laughs> maanaam Lac de Guiers moo nekk nit koo xamante ne ci problème rek lay amee bayre te pourtant nag la de Guiers 2 il mérite la totale rawatina ci gox bi ñu dëkk muy géejawaay amul kenn ku fi def loo xamante ne moom defu ko la de guerre nekk na nit koo xamante ni géejawaay dañ ko war a taxaw maanaam ci année yi passé kan moo gën a sonal waa géejawaay ci mbëri du Eumeu Sène defetam bu mujj géejawaay la de guerre de moo ko daan Boy Niang pourquoi nit ñi ko waxtaanee Boy Niang numéro 2 géejawaay huit personnes la fi daan la de guerre de moo ko daan pourquoi kenn ko waxtaanee ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax nit ñi surtout waa Guédiawaye gars yi nañ jàppoo. mais mais mais doguma la foofu la dëgg maa ngi ko ay bàjjen ci làmb parce que damay gis am na ñu bari ne ci làmb jamono ji ñoo xamante ne tey ay maw mais damay di lu ñuy tàntale yéen mbër yi fekku ci la dëgg la dëgg benn nit sa la tuuti mu koy xaw a eh, tàntal ku ci mel ne yow xanaa boo ci waxul duñ gaaw nit di ci wax. waaw c'est-à-dire ñàkk a tàntal bi mooy am na ay défaut comprendre nga lu ma la wax am na côté yoo xam ne daf ci positif c'est-à-dire la dëgg d'une part ay ay ay noonam ñooy ay xaritam mm. waaw ay te nit da ma maanaam am na fen fooy toll maanaam da ngay nekk nit koo xamante ne da ngay jël say responsabilité da ngay jël say matukaay ba pare da ngay ouvert di demalante ak nit ñi di dëkkalante ak nit ñi di waxtaan ak nit ñi di woo abu sa conseil nangam ak nangam ñu ngi dox sama combat lii ak lii ouvert ci côté ñëpp mais moom d'une part boo xoolee dafa xaw a tëju mais nag ñoom ay làqkat lañ quoi man côté boobu du ma ci du mën naa ko bañ a jàppee lu lu garab parce que moom maanaam moom ñoom yooyu lañ xam. éducation bi moo demee noonu mais daal moom moom amut ak kenn xaar ma yàlla nit la koo xamante ni dafa disponible man ni nga may gisee nii billaay wallaay tallaahi émission bi day jàll partout dans le monde li may wax nii barki Seydina Mohamed su ma diggante ak yàlla laa koy seddal man ak man ak moom de man dama koy taakalee rek man ak moom duñ juboo hmm. frère am bu mu bokkal ndey ak baay dina déglu émission bi li may wax bu amul moom moom moom moom dina dina def interpellé wax ne amul moom moo ñu jiboole matul semaine parce que dama ko ne eh maa ngi moom dañoo jote woon ba mu mer ñu bolokante mais bu ma débloqué dama koy bloqué maa war ne ma eh sa papa la nga wax ak moom nangam ak nangam ak nangam parce que man damaa metti comme moom mais dëgg laa ànd ak moom. ci moom en retour dara man du ma kër kenn je très bien chez moi alhamdulilah. moo tax maanaam dëgg boobu ñu àndee lim ma yare li ma sekk ak moom non boo ko laaleere danga da nga may laal ci dëgg nag. waaw comme li nga ma laaj sànq mooy euh, la de moo nekk nit koo xamante ne danga nga ne ma maanaam dafa manqué ay bàjjen ci làmb ji. loolu en général euh, lu koy waral moom tey jii maanaam euh, question boobu noonu dama koy delluwaat ci gox bu mu dëkk. waaw gox bu mu dëkk ñooñu laa koy delluwaat la de guerre nañ ko gën a taxaw la de nañ ko gën a taxaw la de du yoon. ci problème rek lay amee bay rek te pourtant li tax ñu xam ko mooy làmb barke Seydina Mohamed def na fi loo xamante ne nee naa la encore une fois moo waxaat ko bu ñu doon nominé titre trois des arènes la dëgër de lañ koy nominé. surtout waaw ci sport ci sport. ku bële plus de vingt 22 combats. kenn musul toog sa kaw non kenn musul toog sa kaw maanaam bu nekkee dañ laa daan sax maanaam ci ay points ay. ay ay yooyu lañ la daanee. kon la dëgër de il mérite la totale. mérité na maanaam bu ba jugee ci combat yi taxawu ko si ñaata victoire la jugee. moo daan Papa Sow ñoo daan Yékini ñoo daan Boy Niang ñoo daan Eumeu seen ñoo daan Siteu nit ñi duñ ko sax waxtaanee pour quelle raison mais loolu géejawaay am na ay promoteurs yu fi dëkk Parcelles am na ay promoteurs yu fi dëkk Diamaguène am na ay promoteurs yu fi dëkk lépp banlieue bi la mais nañ koy tëgg organiser ko la de guerre combat bi passé. mais li mu ñëw ñoom Baye man ko nañ ñibbi si pour ñu jox ay combat mu bëre. waaw cest moom même bu nekkul Baye Ndiaye mi ngi doon am discussion ak yeneen promoteur waaw mi ngi doon am discussion ak yeneen promoteur mais Baye Ndiaye daf ko bëgg a tëgg daf ko bëgg a organiser. waaw ndax ndaxte tamit Lac de tool na fa boo xoolee ñoom yaakaar naa buñ musee euh, tëgg Lac de Guiers 2 tam benn ñoom ñu tëgg ko. waaw jot na Lac de Guiers mi ngi xaar loolu Baye Ndiaye organiser Alburax organiser événement Lac de Guiers numéro 2. pourquoi pas mook Franc. pourquoi pas mook Eumeu Sène pourquoi pas mook keneen ak keneen làmb ji yaatu na rëg-rëg bëri na ay mbër. mais nañ ko organiser tëgg ko. loolu mooy yoon. loolu am na solo ci benn euh, fi fànn bu may dugg ak yow léegi léegi rek avant maa ñëw ci li nga xamante ne mooy ci combat wu Sa Thiès ma seen Sène damay dugg ak yow ci début bala gay 2 Balla Gaye Tapha mais dama ne combat bii kala ak yële du benn bii dama ci Tapha dafa ñeme bii Tapha dafa yokku am na moyen am na gëm-gëm am na fit te day nañ ko. waa man Tapha Tine seetaan ay entraînement Côte d'Ivoire maa ngi koy seetaan ci ci ci ci ci télé bi maa koy seetaan ci réseaux sociaux yi waaye Tapha Tine d'une part dama ko xaw a tiital waaw parce que mi ngi bëri ak Balla bu décidé te li ma lay wax nii maanaam comme li ma la tàmm wax rek man waxuma pour lu neex nit wala pour nangam kii nii la koy gisee barki naa xam ne dama lay wax lu dëggu bala Gaye bu jëlee combat au sérieux bala gay 2 dafa naqaree bëreel parce que du mbër boo xamante ne dañuy yokk ci moom dara li ma lay wax nii du caaxaan dafa complet dama ko toogal li la lay wax nii Baye Ndiaye mu may dégg mm-hmm. bi muy bëreeg tafaatin ba pat man maa ko toogal ci mbukaay te Balla Gaye boobu la gënoon néew doole boobu la gënoon nekk xale Balla Gaye revanche am mook Issa Pouye mm-hmm. daf ne ma kii bu ma daanee ma dem géej xaru ji Balla Gaye bu décidé bëgg làmb ji neexul daan de tafaatin nag gis nañ ko physiquement quoi physiquement dafa costaud de un yax bi moo mel noonu mais Balla Gaye numéro boo xoolee physiquement nga xool avant bras yi ni mu mel. loos bi ni mu bindoo physiquement da ngay xam ni kii day dem yokku ji doole mais maanaam moom nitu doole la parce que noonu la juddoo moom. waaw Tapha Tine mi ngi bëreeg mbër boo xamante ne mentalement il est très fort mm-hmm. dafa xam ci biir bëri nan la ñuy piéger nit dafa xam nan la ñuy naxee nit. <laughs> boo xoolee boo seetaanee Balla Gaye combat mook Ousmane Diop da ngay xam ne Ousmane Diop moo mag Balla Gaye ci bëri mais dafa tombé parce que Balla Gaye moo ko kal ne ko mbot ma mu mbot ko Balla Gaye sëgg def ko demi maanaam maanaam prise ko maanaam du ko du ko piège dugal ci biir bëre boo xoolaatee combat kon Tapha Tine ça ne va pas dire que dafa am physique ni taxaw na nangam ak nangam billaahi wallaahi mën na daan Balla Gaye mun na ko daan mais Balla Gaye bu décidé sawaay neexul daan waaw maa ngi koy seetaan moom tamit mi ngi mi ngi mi ngi liggéey waaw sérieux na euh, ci entraînement yi. Mm-hmm. waaw waaw di la wax ne la. père fi nga teg sa tànk foofu la. yokkal cere dooleel ñeex. Mm-hmm. waaw moom moom jàmbaar la quoi mais dama ko mere nag. Mm-hmm. waaw waaw dama ko lu tax ko. waaw genre lu tax ma mere ko mere bi mok la dëgër doo yëpp laa la ma maanaam ñoom ñaar ñëpp laa boole mere. lu tax ma mere leen mooy combat Sa Thiès ak Eumeu Sène c'est-à-dire Eumeu Sène ak Modou Lo dañoo toll ci làmb foo xamante ne nga am entraînement nga mën a bëre rek loolu kese daanu leen. waaw c'est-à-dire dafa am ay combat classique yoo xamante ne mental moo koy gagné. dafa am tamit ay tegtal làmb ay rawaan la. boo seetaanee combat Balla Gaye rëg euh, kii combat Sa Thiès rëg-rëg. Sa daf ci préparé ak Balla Gaye lu bëri. boo xoolee même biñ nekkee ci biir géew gi. Mhm. Sa am na sunguf bi bala Balla di jox. mu koy ëff rëg-rëg nii. boo xoolee rëg-rëg daa delluwaat cumbukaayam boo tegaatee image yi. ba pare ba pare bi mu duggaatee ci géew gi dafa dóor Balla Gaye dafa fël loxo Balla Gaye cest boobu am na luy xasan ceram bi loo xamante ne am na luñ ko laal am na fuñ ko yegg cest à tegtal yooyu noonu tegtalu dernière dernière minute yooyu noonu mbir yu mag yi ñoo ko xam mais boo xoolee Sa Thiès combat bi daf man Salif Sa Thiès dama ko xam su ma mag la ba pare dafa diñ dafa sincère du mës a lu ko metti waaw du mës a wax lu ko dana man gis naa ko seetaan naa ko muy rafetal nangam ak nangam ak nangam mais manqué na taxaw manqué taxaw bi du ñu ci blâmer Balla Gaye euh, d'une part mais d'une part dañ ko ciy blâmer moog la dëgër de yëpp laa la wax maanam Sa Thiès mérité woon na prés maanaam am présence la dëgër de am présence su Balla am seen présence nag ça ñoom mën a ñoom mënatuñ ko yokk dara. parce que bu kontaagoon ak ñoom tey boo ko daanee benn mu daan la ñaar am na doole moo leen gën a nekk xale amul dara lu manqué. amul dara lu manqué ci qualité bëre ci physique ci mental ci lépp mais c'est-à-dire làmb dafa am fenn foo xamante ne bu fa tolloo. parce que non ba pare Eumeu dafa dugg géejawaay daan Balla Gaye ñaari yoon daan Lac de Guiers 2 comprendre te te bu ñu fàtte ne Eumeu Sène ci 15 ans yi passé Modou Lô rek ko daan ak Tapha Tine kooku waratul daan mbër ñu naan ay nangam nangam Eumeu Sène ku daan war na la daan mais Sa Thiès moo tolloon foo xamante ne dafa waroon gagné combat bi am ascension ay buntu yu bëri yu mu ko ubbil hmm. mais li ko xañ nag moom mooy moom moom mooy manqué taxaw manqué taxaw bi ça ne va na ko parce que mën na nekk fu ko neex ci àddina bi ñuy déggante di wootante nangam ak nangam mais am na ay bés yoo xamante ne day soxla présence su nit ki tegtal yi nangam ak nangam li ak lii ak lii combat yi dernière minute la tey lii ak lii ak lii ak lii Sa Thiès loolu la manqué ci géew gi moo tax boo xoolee même biñ jugee ci biir géew gi Eumeu amul dara lu mu ko ëppale amul dara lu mu ko ëppale mais Sa dafa dugg ci biir piège u Eumeu parce que respect boobu noonu boo gisee mu jox ko Eumeu Sène comprendre nga ma wax maanaam dafa diglu conseil bu mu ëpp mais léegi nag amaana amaana bu ko Lac de Guiers 2 jege woon wala Balla Gaye 2 jege ko lañ ko ne nangam nangam nangam nangam dina ko gën a motiver daal mais boo xoolee wéet bi. non waxeewu ñu ko ton bu ñaaw mais dañuy wax ne rek seen présence doon na ko gën a. waaw waaw waaw seen présence ko gën force waaw loolu moo tax ñu naan dañ ko seetaan mais dañ ko seetaan bi ñaawul. doo am sa rakk di ko seetaan. Lac de Guiers 2 du seetaan Sa Thiès rakkam la Sa Thiès da koo yàgg a sonnal. Hmm. nga lu ma la wax boo xoolee li dal Sa Thiès dafa wu ci combat Ama Baldé Modou Lô Ama Baldé Modou Lo combat am Ama Baldé combat am moog Modou Lo ci gis. dëgg da nga faa gis per da nga faa gis per Pape Diop Bosson. déedéet da nga faa gis Eumeu Sène. déedéet faa gis Boy Niang. déedéet faa gis kenn. kenn moo fa ñëw muy Sa Thiès. kenn moo fa ñëw muy Sa Thiès léegi nag bis yooyu noonu dafa soxla cadre yooyu noonu. comprendre nga parce que dafa am lu ñuy yokk ci bés bi. Mm-hmm. waaw dafa am lu ñuy yokk ci bés bi. dama gis tafaatin keroog ñëw ci signature bi mu ñëwee Balla Gaye loolu kalaam ba mu ji mu yuuxu yuuxu boo xamante ne nii yuuxu boobu dàq na ragal bu ne mais combat bii nii ak dayoo bi mu am. ñu xool ko tout le temps dama naan bawol bawol yi lu ñuy musuñu bëre ci roi des arènes. saa bu ko bëri dañ koy perte. tafaatin li tax mu doon roi des arènes ci bii moo koy firndeel bii mi war a bëri Balla Gaye su ko ñàkkee fan la jëm ci làmb est-ce que Balla Gaye jamono ji ñu toll ak poids bi tafaatin yor mbaa xel dal na. waaw c'est-à-dire pois poids du du du problème ci ndaanaan parce que boo nekkee ndaanaan dëgg ci biir bëre maanaam sa xelu bëre day représenté doole ci biir bëre. parce que da am ay contre kele nit ki lu mu am am pois dangay xam lan mooy tëj bëre bi da ngay xam lan mooy tijji bëre bi. Hmm. Eumeu Sène ñaata yoon la bëre ak Bombardier. du deux fois. te pourtant Bombardier ni mu gënee diis Eumeu Sène Tapha Tine gënee ko diis Balla Gaye kon lamb du pois kese te Balla Gaye bëre na ak li ma lay wax nii amul ay nangam ak nangam maa fekkee Balla dafa bëri Tapha Tine manu manipuler ko jàpp ko fàqat ko plaqué ko Tapha di mbot mu sañaxal ko maanaam bëri moom bëri boo xamante ne da ngay xam ne kii Elton moo gënoon diis Tapha Tine Balla daan na tax fii ngemb trois mois kenn du mën a toog ci ko am non loolu c'est diamétralement opposé ak lamb poids. Mm-hmm. mais Balla Gaye boobu est-ce que dañ ko amaat ci lamb. bu ñu waxantee dëgg rek. Balla bu ñu waxantee dëgg. waaw dëgg. maanaam liggéey bi tàmbali na ko malgré am na lu des waaw mais boo xoolee Balla ci dynamique bi mu nekk nii ci rythme bi mu nekk nii il est très bien préparé parce que UNICEF du du ay caaxaan foo xamante ne ay deux mois tu fa tu payes trentaine de millions loolu du caaxaan ay spécialiste wër la lii ngay lekk lii ngay naan heure bi ngay dallu sa téléphone deux jours nga koy laal ci semaine bi mooy weekend foofu du caaxaan loolu lu sérieux la Tapha Tine wallahi al azim bu ko Balla Gaye daan mukk ñu ne mbetteel la tafaatin bu daanoon Balla Gaye du bett kenn mais bu ko Balla Gaye daan mukk ñu ne bettal te Balla Gaye faale ko ci dara. faalewu ko ci dara. loolu man maa la ko wax tey barki Seydina Mohamed Balla Gaye bu décidé làmb bu décidé làmb nangoo entraîné ba pare dafa am jomu géew. Balla Gaye bëri naa Gris Bordeaux amitié bi ñu eggee vingt minutes vingt cinq minutes boo ko xoolee physiquement da nga xam ne mi ngi commencé épuisé wu mais jamais mu reculer Gris Bordeaux loolu jom moo koy def waaw jom moo koy def waaw jom moo koy. jom mbër day am jomu jomu géew. mbër day am jomu géew. dëgg la waaw mbër day am jomu may dugaat ay yow tuuti damay dalal tuuti ginnaaw rek problème bu la guerre bi la nga ciy wax magu géejawaay yi yan taxawaay lañ ci war a def actuellement ba seen mbër wala seen doom delluwaat seen i loxo ngeen delluwaat ci activité yi. waaw magu géejawaay yi euh, ak képp bépp cadre bu dëkk géejawaay ak képp koo xamante ne maanaam tey su maanaam soo jéemee mun na dëppoog euh, yàlla sunu borom d'accord ko. maanaam nga nekk borom daraja wala nga nekk boroom koo xamante ne boo waxee dañ la dégg waaw ñu taxaw ko xam ne Lac de Guiers seen doom la Lac de Guiers numéro 2 euh, dafa da dafa représenté géejawaay waaw ci faat na bu nekk nag waaw ci moment yi difficile yu nekk yëkkati na fi drapeau géejawaay waaw nañ ko jàppale nañ ko motiver nañ ko yëkkati waaw mais entre parenthèse euh, maa ngi jaale Maama Lamine maam Lamine bu écrit Lamsaar maa ngi koy jaale way juróom mm-hmm. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla way juróom fa mu dem mm-hmm. yàlla na ko gënal fi mu jugee mm-hmm. yàlla na réccu lu doon dundee yàlla na réccu lu mu doon dundee maam Lamine sa yaay yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko parce que euh, lii dafa nekkoon sama xol pour ma wax ko lan moo tax sax mu maanaam mu nekk sama xol nii burul dara maama Lamine dafa nekk nit ku ku ku baax ku am jom barki Seydina Mohamed ku ku ku ku ku am ngor. ma dégg nag benn mbër wax si wax bu ñaaw muy Zarko. waaw Zarko dégg naa ko wax waxu dof. waaw parce que lan moo tax man la dégg naa ko wax waxu dof te Zarko seer la dof la. Maama Lamine mook Siteu ay amis d'enfance lañ. dañoo yarandoo dañoo juddandoo mais Maama Lamine di ñaan aide pour gars yi jàppale ko ñu Siteu ci turu Siteu nekkul moom moo ko wax de. mais yow nga jóge fee naan ay maye du force mais Zarko pour Sénégal dégg ma Zarko dafa bëri Siteu ba ci guddi gi mu dem soirée waale ku nekk xam ne artiste ci kaw seen dëgg la waaw day day bëgg lu neex nit ki waaw waaw maa ngi nuy Waly Seck suma mag au passage mhm. Zarko bëri Siteu ci guddi gi mu dem soirée Waly Seck Waly Seck di ko woy naan ko Zarko may naa la cinq cent mille même bu nekkee dëgg la ci Waly Seck moo xam nekkul dëgg Zarko amul fu mu taxawul ne Waly Seck ba tey jox ko cinq cent mille waaw Zarko sëgam yow yaa mën a dem ci Wally Seck naan na la jox sa 500000 te yow amul benn lien boo ama am ak Wally Seck Wally Seck nekk kilifa nga ne da nga koy jéebaan sàqamtim ti Maama Lamine ak Sita Maama Lamine ak Sita ñu bokk ndey ak baay fowandoo Maama min bu laajee Sita war na ko laaj Sita maanaam mu jàppale Maama Lamine far force la ci moom maanaam xam nga nit ñi dañuy jaawale benn affaire am na ay relation yoo xamante ne nga defal nit man la dëgër de tey maanaam comme li ma la wax rek man euh, damay damay waxee noo xamante ni au plus profond de moi man noonu laa mel man xaaruma ci nit dara mais am na diggante yoo xamante ne far force la maama mi dafa war a nekk dans le besoin gars yi taxawu ko surtout wayjur Zarko ndax xam na la mooy wayjur mais yow nga taxaw fi barki Demba Ndiaye foo taxaw ne Wally Seck na ma jox sama 500000 te Wally Seck képp ku ko xam xam ne ay nit ñu bëri ñoo jaaree ci moom réussir ñu bëri ñoo jaaree ci moom am kër ñu bari ñoo jaaree ci moom am oto mu jàppale ñu bëri mais yow nga nekk ijoo xamoo dara jékki-jékki naan ay maye du force ak affaire yooyu loolu dafa ñaaw man loolu bi ma ko déggee barki Seydina xam ne ba jusqu'à présent daf ma naqari waaye léegi Maama Lamine moom no amul droit ne Siteu daf ko war a jàppale yow mi dem soirée waali waali ne Zarko may naa la 500 fu ne nga wër fa fu ne te maanaam Zarko maanaam daf maanaam yow say morom dañ la fee boo xoolee ay Ama Baldé nga bëreen dool ay Sa Thiès te ma sax ci âge yàlla leen mag Ama sa judd mais dañ la fee bàyyi parce que xam la moo tax li nga gëm ak li ñu gëm bokkul barki alxuraanu karim waaw maa ngi lay ñaan Zarko nga nekk nit bàyyi sa waxu dof yi lu ne nga def ko am na communication yoo xam ne dafa ñaaw woy jur bu jigéen barki Seydina xam ne dafa sacré ci ci doom waaw yaay booy wax yaay xam nga xoolal ni muy mel yaay mais maama mi mu dem ba yaayam mooy sang yaay ji mooy toog yaay ji mooy waxtaan ak yaay ji mooy tëdd ak yaay ji noo dem ba am problème mu vingt mille diggante moog woy juróom bu jigéen bu laajee war koo ñett hmm. Zarko amul dara lu mu ko ëppale mais dafa am communication yoo nte ne rafetul si ku nit ku ñàkk way juróom maama maa ngi lay masaw bu baax. waaw waaw gënal am courage. gënal am motivation man sama mbër nga man Guédiawaye a dëkk fii de. mais sama mbër nga. te barki Seydina Mouhamed yow boo gëmee da ngay sori ci làmb ji parce que da nga am jom. waaw ñu ngi lay ñaanal ak waa Lamsaar Siteu. waaw suma xarit la suma grand la moom dañ doon nekkandoo Daaru Salaam kër sëñ Sidi alxuraan moom bu ma déggee dina xam. du ma développé lu bëri mais sekk nañ ñu waaw ñoom ay ay ay ay Ama Baldé mbër ay Sa Thiès ay Boy Niang ñoom ay mbër yi positif en ah, nekk nit nekk ay xale am luñ bëgg mais benn dof Zarko nekk fi chaque jour lu ne mu dugg si na ba yooyu xool ci ay moromam Boy Niang doo ko dégg si dara Ama moo gën a xale barki Demba Ndiaye si laa mu nekk xale doo ko séen ci dara loo koy xeebee Pikine mi ngi toj ñi ngi wax na doo ko ci dégg mais nit da ngay positif da ngay correct da ngay am loo bëgg ñi nekk fi di xëccoo ay combat royal yow nga nekk fi demoo dikkoo ku jugee ku jug nga xas ko non dafa ñaaw waay. mais fi ma tëjee ay yoon Alioune Seye 2 Eumeu Sène ñu bari ñu koy sàkku Balla Gaye communiqué na ci. waaw Alioune Seye 2 Eumeu Sène maanaam même bu nekkul euh, communication bi si Balla Gaye def Balla Gaye def na lu rafet nag. waaw waa Gunaas seetaan nañ ko waa Géejawaay seetaan nañ ko dañ ko rafetlu. Euh, la de Guiers 2 kii Alioune Seye numéro 2 nekkul moog ñoom Balla Gaye dafa mag ñoom Balla gay magu leen de mais c'est-à-dire maanaam daf leen a njëkk a sopp ci bëre. comprendre nga ma la mm. Mm. Alioune Seye 2 ak Balla Gaye non magante wuñ de maanaam ñoom ñëpp ay morom lañ mais daf leen njëkk a sob ci bëre waaw boo xoolee Balla Gaye 2 lees 2 moo ko indi école Balla Gaye waaw parce que Double Less numéro 2 Mamadou Sakho lañ ko tuddee papay Balla Gaye lañ ko tuddee direct pas tur bi moom la nekk turandoom ci lamb ji Double Less 2 mais moom lañ direct tamit waaw parce que Balla Gaye mi ngi doon liggéey atelier tubaabu joor Double Less 2 moo jàpp ci loxoom indil ko père Balla dénk ko ko bu école beeg bi benn la mm. léegi nag bëri na ci xeetu bëri loo xamante ne maanaam Alioune Seye na ko ci ñoom mais alin Seye numéro 2 nii bu ñu waxantee dëgg ku ko bañ da ko ragal. waaw gis naa Eumeu seen def na nag acte grandeur te Eumeu seen moom sax moom moom noonu la mel naturellement boo ko xamee dëgg Eumeu seen moo nekk nit koo xamante ni dafa dëggu mën man géejawaay la dëkk suma père la mayuma dara toogu tooguñu waxtaan defuñu dara mais Eumeu seen nit ku dëggu la mais àddina am na yoo xamante ne chacun récolte ce qu'il a semé boo gisee li mu am nii da ngay xam ne kii dafa am ñaanu waajur da ngay xam ne kii dafa barkeel da ngay xam ne kii dafa jox nit ñi seen àq moo tax mu maanaam li muy def di réussir li muy def di réussir ku baax la waaw victoire bi nga am ci Sa Thiès na la jig ku baax la ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax barke alxuraan ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax waaw ñu ngi lay ñaanal bu baax Ah. jërëjëf Kalla wax ci am na solo waxtaan bi am na solo loola di wax ne man ak moom buñ toogee dañuy waxtaan ci lu bëree bëree bëree bëri amaana sax lañ dañ sa mëpp liñ génnee nii mais buñ fi toogoon nii du jeex de dina bàyyi nga tagatoo àdduna sama diggante ak yow moom sama sama waxtaan ak yow moom <laughs> géej la quoi parce que xam tax du du du jeex waaw du jeex waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jégalu ñëpp nag mm. waaw bu nekkee dañoo wax loo xamante ne waruñu ko wax ñi ngi ñi ngi ñi ngi jégalu bu nekkee wax ji lu positif la tamit du sunu kàttan kàttanu yàlla la yàlla moom kàttan waaw ñu ngi baalu ñëpp ak waaw di ñaan Sénégal tamit yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke yonent bi quoi waaw moom noonu la ko ba pare ba ba pare Cheikh Tidiane Al dafa wax ne mu ne eh, natt boo gis ëmb yiw la jàmm bi di ko di di di di ko ñaxtu lu bëri daf koy avorté waaw maanaam yàlla moom heure bu la tegee nattu rek daf la boole ci ci ci ci la vie y aura des tourments y aura des mais n'abandonnez jamais c'est parce que ça vous rendra plus fort mm-hmm. waaw la vie moom ne faut jamais baisser les mm-hmm. nit ki dafa war am courage tout le temps mm-hmm. am jom comprendre maanaam tey émission bi boo gisee boo gisee maanaam ma woo la pour ñu defee ko ci kër gi kër gi suma mag espagnol fii la dëkk Balla Gaye numéro Yékini moom moo doon bëreeg euh, Balla Gaye 2 seen dernier combat Balla Gaye ci kër gi ci kër gi la déparé woon balaa moo dem stade waaw mi ngi woo benn grand bu tudd Daali fii nii fekk Daali moom Yékini moo nekkoon bërëm mu ñëw fii toog Daali abal ko album bi muy xool di xool di xool ba yam ci photo Yékini ne Daali kii kan la mu ne ko kii mooy Yékini mu ne kii xa sax xam ne maa koy daan ci kër gi laa la wax de kon histoire la kër gi ma la indi nii. waaw histoire la kër gi ma la indi nii parce que li may wax nii dama fekkee dama ay sept ans huit ans ñu may fot di ma bopp boot di ànd ak man ma repéré wu yu bëri moo tax man du ma waxantu su ma la waxee lii la rek lii la te Balla Gaye mu ngi may dégg Lac de Guiers may dégg Sa Thiès mu ngi may dégg xam nañ ne kii li muy wax nii lu mu maîtriser la Sa tamit maa ngi lay mastaw nu ngi koy gisee noonu non dafa baax Salif dafa baax dafa gore du wax lii moom a metti gisoo maa ngi seetaan ay interview yu bëri gars yi dañ koy seet ñii neen dañ laa seetaan ñii neen am na lu ko manqué ci combat bi lu bëri mais du ko wax barki Seydina xam ne du ko wax mais Sa Thiès maa ngi lay masaw bu baax waaw maa ngi lay masaw bu baax waaw na yàlla jàppale la yàlla na yàlla suturaal la ko waaw kontaan naa nag kontaan naa ko wa jërëjëf aw